samsi fukki aay ak juróom juróom fukki baat ak ñeent euh, ñaari téeméeri xaraf ak ñeent fukk ak juróom-ñaar bismillahi wa samsi giñ naa ko ci jant bi wa ak yoor yooram bu yoor yoore ba maa ngi ciy waat wal xamari ak weer wi maa ngi ciy waat iza bu fekkee topp na ca waaw mooy bu jant fee jant soye weer wi génn topp ca gannaaw soog jant ba wa nahaari maa ngi waat ci bëccëg bi ida jallaaha bu demee ba leeram gi yëkkati ko bu demee ba wuññi ko wa layli maa ngi waat ci guddi gi ida yaxshaaha bu demee ba lëndëmam gi matale côté bu ne muur ko wa samaayi maa ngi giñ ci asamaan si wa ma banaaha ak kattan li ñu ko tax tabaxee wal ardi maa waat ci suuf si wa maa taxaaha ak kattan li ñu ko tàllalee mu tëë banku wa nafsin ak maa ngi cibaat bakkan baat bakkani kon wa maa sawaaha ak kattan li leen yemale ñu ne roj roj jaaral fa alhamaha ma ngoog moom bakkan yenkewel na moom yàlla fu juuraha kaccooru bakkan wa taqwaaha ak ragal yàllaam lu baax ak lu bon yàlla xamal na ko bakkan mooy wa hadaynaahu najdayni yoon wu baax ak yoon wu bon yaay seet nag bu sa borom sama borom defalee sam xel yaay seet ñaar yooyu ban nga ci tànn li muy waat mooy xad aflaha dëgg dëgg nag texe na man zakkaha képp koo xam ne sellal na bakkan booba ba fexaree génn ci moom ngisal génn ci moom tapale génn ci moom bëgg daraja xeeti bon bon yëpp rasail yooyu yëpp génn ci moom waxat xaaba sooy na man da saaha képp koo xam ne dafa nëbb jikko yu yooyu ci bakkanam te mooy yàlla yooyu kooku day day mujj échec kazzabat weddi woon na samud giir samud weddi woon nañu seen yonent mooy yonent yàlla saalih bi ñu waxoon léegi bi taqwaaha ci seen sababu mbéyte ga idim baasa ba buuree asqaaha ka gën a te xëy ci ñoom mooy xudaar laxaraan googu doon jëmala seen gileem ga fa qaala wax na lahum ñeel leen rasulullahi ndawal yàlla la mooy yonent yàlla saalih naaqatallaahi gileemu yàlla gi bàyyi leen ko bu leen karay wa suqyaaha ak nandalam bu leen karay waaye fa kazzabuuhu gaa yi weddi ko taxawe nañ taxawe la leen dal dal leen faakaruha loj nañ ko rendi ko fa dem dama këpp na alayhim ci seen kaw rabbum seen borom mbugal bi dambihim ci seen saaw bàkkaar yooyu fa sawaaha mu yemale leen bañ ne kamuus ak mbugal ma daj leen kap wala yaqaafu du ragal moom yàlla uqubaaha gannaaw lii la leneen gannaaw bu ma leen mbugalee pare ragalu ma leneen la cay tegu xofuma ci kenn man yàlla lu def lu ne daal amul kuy taxaw di ko gëstu lu tax yóbbu ko digg ak yóbbu ko fii yóbbu ko faa mm. déedéet